ndax euh, jamono jii nu weesu. ndax jamono jii nu weesu. xat na lool. xat na lool xatoon na lool xatoon na lool. waaye tawféex sëriñ bi rek. waaye tawféexu sëriñ bi rek. moo moo nekk ci kanam. moo nekk ci suñu kanam. ñun xamuñu dara. ñun xamuñu dara. ñun dara dara. doon dara mënuñu dara mënuñu dara tawfeex sëriñ bi rek mooy la ñuy xool tawfeex sëriñ rek moom la ñuy xool bu bu nu sëggee rek mu wan nu fan bu nu sëggee rek mu wan nu loolu rek moo ci am fan jëm loolu rek moo ci am loolu rek moo ci am ah, ah, xew-xew bi amuñu ci woon benn benn tiitaange nee na mosuñu ci am benn tiitaange ci xew-xew bi ni ma ko daal leerale rek nun nun dana yaa yaar rek la yaar rek moo moo nekk moo moo moo moo nekk ci suñu wet. ndax yaar rek moo nekk ci suñu wet. yaar yaar yi rek mooy moom moom la ñuy moom moom moom la ñuy jëfandikoo. yaar yi rek moom la ñuy jëfandikoo. mooy mooy mooy wéetal yàlla. mooy wéetal yàlla. yàlla mooy def mooy dindi. moo yàlla mooy def mooy dindi danoo am yàqin ju mat sëkk ci ne yàlla dong ngay def moom rek kay dindi. doyloo sëriñ bi itam diggam ak boromam. doyloo nag sëriñ bi nag digganteem ak boromam. ndax sëriñ bi lu mat a fàggu ci nun ndax sëriñ bi lu mat fàggu ci nun fàggul nanu ko fàggul nanu ko lu mat a ñaan lu mat a ñaan ñaanal nanu ko ñaanal nanu te jiwoon na ci ak boromam te jiwoon na ci ak boromam kon kon yàlla nag yàlla nag moo xam li muy def moo xam li muy def so soppiku jamono mosu fay jóg soppiku jamono nag mu mosu fee jóg diggaale mag jaam yi mosu fee jóg diggaale mag jaam yi mosu fee jóg te du fi jóg mukk loolu mooy mooy mooy xew-xew bu yees loolu mooy xew-xew bu yees bii loolu dong la loolu dong la waaye nag waaye nag amuñu ci lenn lu ñuy lu ñuy jaaxal nee na nag dara amu ci amuñu ci luñ ciy jaaxal wala lenn lu ñuy sikki sàkk wala lenn lu ñuy sikki sàkk musta am musta am ci biir loolu nag ci biir loolu ma am ma ma ma ma ma ma ma ma ma am ma am cant gu rëy nag. ci biir loolu nag ma am cant gu rëy. ci ñi ñi ñi ñi ñi ko bokkal. ñi ko bokkal. ndax diine jee fi nekk. ndax diine jee fi nekk. adduna ji ak adduna ji. am na ñum dénk diine ji. am na ñum dénk diine ji. am na ñum dénk adduna ji. am na ñum dénk adduna ji. nu bokk nu bokk jamono. nu bokk benn jamono nag. bokk lépp nag bokk lépp nag. waaye nu xaw a waree. waaye nu xaw a aw doxin. aw waree aw doxin. waaw ñoom itam. ñoom itam. Eh, eh, ci seen liggéey rek lañ nekk. ñoom nag ci seen liggéey rek lañ nekk ñoom waa adduna yi. ndax la la xam. ndax lañu ñu xam. borom xam-xam yi saahir yi. borom xam-xam saahir yi. la xam. la ñu xam. moom la ñuy jëfandikoo. moom la ñuy jëfandikoo. loo oh, loo loolee nag. loolee nag. ma sant am ci cant lool. maam.